na jëmm joo xam ne ñu bëree bëri bëggoon nañ ko teg nag bët euh, ngis gis ko kon muy wax nii ci télévision ñu dellu saat ginnaaw publicité bi mais Clédor mhm. sa tur nag mi ngi gën a maanaam siiwee mhm. ci coowu maître Babacar Seye waaw ci 1993 mhm. Pape Ibrahima Diakhaté mi ngi tudd sànq ci quatre personnes yi moom ak yow ñu tudd leen daal ci neñ waaw ñoom ñoo rey maître Babacar Seye et cetera et cetera

ku ñuy wax Modise indil ñu ci moom. kan ci Modise. waaw mu toog Abdoulaye Wade toog Ousmane Ngom toog mu wax ni mais ñun li ñu def nii lan moo tax ñu def ko boobu man maa yoroon kàddu groupe bi ma ne ko ñun de dañu jàpp ni ñun ay jeunes chômeurs lañu ay étudiants lañu amuñu liggéey te bëri nañ fi. ñun li ñuy yóotu pour tedd yow am nga ko mooy ñun kër soxna njaboot compte bancaire bu duun mën na ñun dañu jàpp ni loolu yëpp am nga ko léegi yow loolu yëpp boo ko amee ba noppi di xeex ba ñu la ci tëj tëj kaso ba ñu la la ciy agressé parce que dañ ko daan agressé tamit dama xalaat ni pour ñun la donk ñun pour participer ci effort de changement boobu loolu moo tax ñu jéem a peser ci balance bi mu ni ñu dama bëgg ngeen jël sama carte parti ngeen militer parce que man dama soxla ay ndaw yu mel ni pour ngeen dem militer PDS PDS waaw fekk ñun diisoo ne ñun ni ñun duñu militer ci benn parti après ñu xamal ko ni ko ñun parewuñu pour militer ci parti hmm. ndax li réew mi dajale ci compétence yi mënul xëcc ci benn parti te amul benn parti boo xam ne moom kott mën na développer Sénégal loolu mooy première raison bi ñaareel bi ñun mënuñu tënku ci xalaatu parti socialiste nii lay xalaatee euh, libéraux nii lay xalaatee joxe mot d'ordre pour ñu respecter ko ñun suñu liberté lañu lañu ñu gëm donc mënuñu kii ba noppi ñun li ñu jàpp ni mooy indi changement dëppoowul ak doxalinu parti politique bu ñu constitué légalement parce que ñun gëmuñu carte parce que boobu gëmuñu woon carte motax li am fum nek ni c'est important ñun xex lañu gëm ni moy indi changement mais pas carte parce que bobu carte yi doon dara mën leen nak pour mën ko ñu ni ko pour ñetti raison yooyu motax tax ñu militer politiquement donc lolu mo indi suñu xamé ak Ablaye wad légui xamé gogu nak hmm. moo indi 93 parce que am nañu passé ci 88 88 93 ñew comme niñ may comme niñ may def ni rek non la demee woon mu nek complot bu reuy bo xamné ne révélé gul secret yooyu yëpp Sénégal nak pourquoi nit ñi duñu mëna percer mystère affaire Med ñom ci fay mo leen intéressé kan mo nekkon ci auto bi kan mo tiré alors que lool yëpp jugé nañ ko ba teg parce que mbir bu amé da ngay xool toujours li ko indi boo ko bëggee comprendre te tey jii nit ñi euh, Ahmed Aïdara yow mës ngaa gis dossier boo xam ne atte nañ ko ba pare jàpp ay nit ñi ñii la ñu jugé leen tëj leen affaire bi nanguwul fay ñu topp ci rek di ko xeexantee rek 2002 ak léegi ñaata la ça fait ça fait

comprendre la ñuy bëgg ni mbir mi demee. waaw moo tax tey nag bi nga bi nga bi lay àlla dogalee nga ñëw jàkkaarloog ñun ci seen TV moom. Mhm. ñu def ko sant yàlla gu rëy. parce que mhm. lii mhm. sénégalais yëpp. ñoo ko doon gént. waaw léegi man mel ni Clédor seen fan lay toog. ba wax nit ñi. lan moo xew keroog. ci weer woowu. ci at moomu. di 1993. bis bi ñuy rey maître Babacar Seye. lu xewoon ñu mm. bëri kon boo toogee fii tey. Mm. comme ni nga euh, leeralee ci affaire voie euh, oto yooyu ñu doon taal 88. lépp day lépp day leer parce que euh, loolu moo waral sama teewaay fii ah. léegi li xewoon mm-hmm. nit ñi li li leen li leen fay jiital obnubilé intéressé moo tax lu ñu xam man nee naa la boo buggee comprendre fa mu dooree ngay jéem a comprendre léegi fan la dooree. 93 nous avons la 88 dañu code électoral Après, nous avons après un code électoral consensuel. Il mm-hmm. hmm? euh, indi isoloir ABC âge électoral mm-hmm. identifier électeur ak avons mm-hmm. ñu une élection présidentielle code électoral prévoit l'utilisation prévoir une utilisation ordonnance une ñu élection PDS gagné ci opposition bi bien mu si le résultat de la commission nationale de recensement des votes il mu gagné. parce que dafa amoon ay bureau de vote yu bëri yo xam dañ ko warona a annuler bo par exemple ben ben bureau de euh, 700 inscrits 1300 votants loolu mënul bax légui bo défé recours en annulation dafa wara a donc maître Ousmane Gom yu mel un yu de yu Il yu fait la am yu a parce que satch bi dafa un ba ci nombre d'inscrits, nombre de votants Légui Faut faites nga déglu dama bëgg ñu déglu baax limay expliqué. parce que le problème démocratie la Légui opposition bi def ay recours wuñ ci statuer commission nationale de recensement des votes euh, André Vaz mon présidente bi Bambay euh, n'est que président conseil constitutionnel Comme au cours suprême xam à mon. conseil constitutionnel résultat provisoire nous nanguwuñ ko joxe ba délai pour nous proclamer résultat provisoire passé Andrésia mënul acté dossier bobu noonu la refilé document yépp jox ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel retourné ko niko na na arbitré ba nopi publier résultat provisoire yi jox ko délai trois jours Kéba Mbaye bind jox ko délai trois jours mais bam mu koy renvoyé dossier mom moom Kéba mu ngi bind démission Andrésia bataille proclame proclamé résultat Madame, conseil euh, commission euh, de recensement des votes proclamé le résultat provisoire Non la baloté yep. le il jox euh, conseil constitutionnel Kéba démissionné avant de les trois jours il Kéba démissionné parce que am na lu bëri comprendre Andrésia démissionné démission boobu dañ ko war di journalistes yi da ngeen def investigation parce que c'est l'histoire politique contemporaine du Sénégal 88 ba léegi c'est 27 ans lu ama am ama am solo la ci histoire politique Donc, dëkk donc euh, commission de recensement des votes amatul président conseil constitutionnel amatul président waa léegi élection yi ni muy demee lépp ni teg te ñëpp a ngi fàttali 88 jëyee ji amoon tu comprends André André Zia, nous avons parlé. palais ko pression am a fait jaar ak pour revenir sur sa démission mais non le transmettre dossier du conseil constitutionnel ce lañ nommé Youssou Ndiaye mu proclamer Abdou Diouf élu dès le premier tour c'est ce sax lapsus la parce que PS nous avons dit dès le premier tour conseil constitutionnel au premier tour Nous avons dit, ko et quelques pourcents.

Nous nañ ko considérer comme deuxième tour parce que ku majorité assemblée il gouverner a gérer donc nañu la euh, législative comme deuxième tour bu avons def dara amoon na sax ñu ko ñu ko ñu mënu nous dégg loolu jot a def ay action mais amul ampleur de 88 Je ma fàttali la ni 88 état d'urgence mon amon. comme du comme du comme 2011 armée bi la police bi ak gendarmerie bi ñëpp nekkoon ci mbedd mi 9h ñëpp fay seen lampe amul circuler paa yi pour ñu dem fajar jàkk ja dañ ko négocier moratoire dañ ko négocier dérogation plutôt ñu defal leen dérogation parce que ñoom ay 5 heures du avant 5 heures du matin lañ doon dem donc léegi ñu dem ci législative yi ordonnance yëpp PS utilisé woon PDS utilisé ko buure urne yi ñoom tamit. On a gagné avec 65 sièges au Parlement gagné 100 Il a une majorité Mamadou Diop a perte Dakar 100. moo a gagné avec sama procès a gagné avec 100. pas ko gagné perte Dakar il ko gagné ñu négociation di a PS ak PDS am ñu ci même 2000 2000 2000 léegi ci contexte boobu la assassinat met Sèye am léegi ba mu amee na doon jóg ñëpp tiit jaaxle parce loolu musul am Sénégal lépp ni teg lépp ni selaw te loolu bu leeroon bu leeroon ne ñun la kon kenn waxatu ko yow mës nga gis ku rey institution bi institution judiciaire bi conseil constitutionnel nga vice président ñu war la ñan ay ay yow sax perpétuité sur cour d'assises dégg ñu perpétuité ñu magistrat hein? lu day république ce que représente l'institution judiciaire nous porté atteinte à ce niveau là nga Carlock désigné comme coupable te y avait la peine de mort Ce n'était pas encore aboli Ablaye Wade aboli la peine de mort une peine de mort une perpétuité ñuy wax circonstances Nous ñu beaucoup de circonstances atténuantes. mais dafa am leneen lu waraloon procès donc ñàkk leer googu moo fi moi ba bataille. man pare na pour leer parce que kenn mësuma dégg ñii bind nañu livre ñi bind livre yëpp maa leen ëpp matière. yan ñoo bind livre. Euh, wa wal yi sen journaliste bi bind nañu livre euh, fàtt naa seen tur euh, Tidiane kasse ak xawma naka xamar Madické Niang bind na livre. Habib Thiam bind na livre Abdou Latif Koulibaly bind na livre te livre yoy ku ci nek da ngay xëc mu jëm sa côté. lu arrangé. wa kan mo leen ci gëna chargé ci ñi bind livre. Abdou Latif Koulibaly Koulibaly wa mom daf ñu chargé bu nopi déchargé Ablaye Wade mais xamul ni dafa décharger Ablaye Wade waa PDS. xamuñu ni dafa décharger Ablaye Wade parce que seen communication dafa des kon tey daal ci kaw gàttal mun na nañoo wax ne kon ñoom Clédor Sène ñu doon wax ay ñoom Pape Birame Diakhaté nekkul na ñoom ñoo rey maître Sèye déedéet affaire maître Sèye ñi ci xam dara dëgg dëgg dëgg dëgg doo dégg ñuy wax wala boog seen wax du ci bëri est-ce que di ngay dégg seetlu Tanor di ci wax lu bëri est-ce que di ngay seetlu Djibo Ka di si wax lu bëri moo nekkoon ministre de l'intérieur tanos il était à la présidence lu xew ci dëkk bi ñoom xam nañ ko euh, Madiang Khary Dieng bi téye woon bal bi tele naan mu ngi nii foo koy dégg Madiang Khary Dieng ministre ministre ex ministre foo leen di dégg ñooñu duñ ci wax dara Djibo daal moo ci mujjee wax bi Abdou Diouf ñëwee ci OCI bi francophonie euh, francophonie bi plutôt euh, te kontaanul woon ci livre bi mu bindoon maa ngi dégg mu naan ko bu matul dina wax li mu xam ci dossier médecin di ko menacé kan moo doon wax loolu Djibo Ka moo doon menacé Abdou Diouf moo doon menacé Abdou Diouf ci affaire médecin man loolu jaaxal na ma lool. yéen ñi fi nekkal leeral askan bi boo mënoon dem tàllal ko micro laaj ko lu tax <laughs> mu ci doon menacé Abdou Diouf bon xëy na nit ñi dañ ci xam dara donc loolu laa bëggoon a donc euh, du loo xam ni daal ñi ci xam dañ ci dañ ci dañ ciy wax dañ ciy faral di wax loolu moo. daal ñi noppi ñu mel ni ay ñoom Ousmane Tanor ñi Djibo Ka dañ ci xam dara. en tout cas euh, xam nga est secrétaire général à la présidence tous les renseignements généraux sont destinés tous les rapports sont destinés, il y a des destinataire il koy a donc lu xew ci dëkk bi da koy ministre de l'Intérieur, Le euh, service de renseignement armé, il yow renseignement centraliser le président doit être la personne la mieux informée du Sénégal mais ce n'est pas lui-même petit personnel qui va au renseignement Il faut amener une crise Tanor c'était le cas donc, euh, le ministre de l'Intérieur aussi, il va de soi qu'il <laughs> est très renseigné. C'était Boka. S'il va jusqu'à menacer Abdou Diouf, bon, moi, je sais Man, je sais pas. man, def na prison euh, presque 10 ans. 10 ans. Si jamono joy. Gis na fa ñoo xamné dañu boom, dañu ray nit. Mais gis nga bo len gisé nekkatuñu nit dañuy yooxu guddi dañ leen di jéng mënatu leen parce qu'ils sont dangereux même pour eux-mêmes dañuy gaañ sax seen bopp ñu di tuddee ay aliénés nit du du du du du affaire bu ndaw rawatina euh, kilifa jullit Babacar ni la xam nga euh, ba noppi yàlla lan la wax ci alxuraan moom mooy jox nguur ku jëlee nguur ci loxo ku ko soob bu fekkoon ni moom moom mi ci mi ci bëgg a tuumaal donte yoon setal na ko moom la woon kon xanaa yàlla du yokk martabaam ba mu nekk président amul lu ko gën a kawe. waaw c'est que mais est-ce que nekkul ne aussi li ci xew après moom moo tax ba génnee ko ci xaw a jafe. après lan après lan. li ci xew daal maanaam bi mu faloo moom tam mu amnistie. non avant muy falu. waaw xam nga xam nga ñu bari dañuy fàtte waxu ma Abdou Aziz ma Abdou Aziz am na lu mu waxoon ne woon na ñi def mbir moomu yàlla dina leen toroxal fii ci kaw suuf mais Ablaye yàlla da man maa ngi ànd ak sama sagu, maa ngi sant yàlla li ma topp si cet Ahmed santial. te maa ngi nii maa ngi sant yàlla bu doon keneen kenn waxatu ko loolu doy na sant yàlla donc Euh, atte boobu dafa tey xel dafa dafa dafa tey xel loolu moo tax nit ñi ba léegi ils sont sur leur faim léegi nag politiciens yi dañ koy jiiñante de tout bord nag PS PDS ak PS seen biir ak PDS seen biir PDS APR doo comprendre te ña cay wax xamuñu ci lu bëri ñi ci xam dara ñu ngi ni tekk ñu wax nous bind livre la limal man matière parce que ñoom dañuy gëstu. mais est-ce que ñoom bi ñuy bind livre ci ñenn ci nañ la pour am plus ci man kenn matière. mais yow ñi nga xam dañ la chargé ak lu toll meurtre ak yooyu lan moo ba euh, mais j'étais en prison ba noppi affaire affaire d'état Ahmed Aïdara parce que euh, jamono jojo ku wax George Mouz, ñewon na fi sous-secrétaire euh, d'état américain aux affaires africaines affaire médecin incident la bo xamné warul téré ku jégué ak nguur gi and liggé wax ni wax juree la parce que warul tuutil lu toll ni affaire médecin yi ba naan incident la presse bi yëpp dal ci kawam 93 94 mu dem mais boo gisee mu waxee noonu mooy ñi doon jàppale Sénégal bailleur de fonds yi nangootuñu woon jàppale Sénégal parce que booba dëkk bi yëngu na lool ca la ñu wàññi salaire ñëpp 30 pour cent plan a ay milliers de fonctionnaires ñu Il leen ay treize mille fonctionnaires ñu ngi leen départ volontaire ci la UNACOIS judd ci la UNSAS am doole mu am ay grève générale yo xamni même parti Madia Diop euh, syndicat Madia Diop ci grève bi lañu ñu bokkoon euh, participation responsable donc dëkk bi paralysé étudiants yi mm-hmm. di di xex mu am suñu première année blanche xam dëkk bi ingouvernable léegi nag ci contexte boobu la ñu léegi affaire yi il faut PS ak PDS juboo jàmm am ñu mën a continuer programme Sénégal ci côté bailleur de fonds yi. d'accord léegi Abdoulaye Wade bañ dugg ñu ne léegi il faut vider l'affaire Maître Sèye loolu moo tax ñu jugé ñu. pour ñoom ñu am leen jugé daal patam patamee. waaw léegi waaw. pour jàmm mën a dellu si. waaw pour ñoom ñaar ñu mën a. jam mën a dellu si ñoom ñaan ñu ñu ñu. waaw seq gouvernement mais mais d' accord xam nga sànq yaa ngi xam le ko yéegal def ko njiitu réew et cetera mais bi mu ñëwee ba maanaam euh, ñu libéré ñoom Clédor Sène mm. ñu bëree waaw Ablaye Wade da ngeen ni libéré leen mm. sax d'ailleurs mm. génn nañ dëkk bi passeport diplomatique et cetera et cetera loolu tam est leen joxoon xaalis jox leen ay passeport diplomatique non non kon ñu génn dëkk bi kon ñu génn dëkk bi kon ñu riche kon ñu am ay kër ay immeuble kon ñu riche. kon nag xaalis boobu ñu doon wax amul. ñun amul non amul ñun mënuñu sax jot ci Ablaye Wade. bi ngeen génne bu ñu génnee suñu toog ak Ablaye Wade. ah bon wallaahi lazim musul am léegi euh, loi d'amnistie bi concerné wul Ablaye parce que moom justice moo ko setal. boo xoolee li ma la doon wax sànq dañu ni du PS du PDS ñun la ñun ban intérêt la ñu am pour def attentat. est-ce que yónnee wuñu leen. kan moo ñu yónni. moo jaral PS ak PDS a fi nekkoon. waaw moo jaral laaj. waaw léegi yoon nee na du PDS non lieu la PDS am léegi ils n'ont pas jugé nécessaire ñu instruire ci côté PS. léegi ñu renvoyé leen dos à dos ni du kii du kële ñun la loolu est-ce que yenu na maanaam. léegi ñu dem ba ci biir hmm. ñun Abdou Diouf mo ñu naroon njëkk amnistie Abdou Diouf wallahi ah bon waaw 96 parce que dañu warona a bokk loi d'amnistie ak euh, rebelle Casamance mais Aba Diamacoune moo yàq loolu parce que fu won def déclaration ñu jox ko télé bi ben mois de décembre mu wax waxu indépendance Abdou Diouf génn ci affaire bi man amul ben gouvernement bu ñu mënon téé en prison gis nga même opposition bi wax ay Amath Dansokho ak yooyu ñoom bu ñu nekkoon président dañuy bàyyi parce que ñun bi ñuy jugé bi ñu àttee ba pare dañu saraxu pour ñu bañ def pourvoi en cassation parce que bu ñu defoon pourvoi en cassation beneen cour moo ñuy rejugé waat te boobu mbir mi jàmpoon na il fallait ñu trouver solution au sommet de l'État ñu def sacrifice bobu nangu xam nga loolu nit ñi xamuñu ko yow yow ku ñu ne da nga rey état ñëw di la saraxu ni dimbali ñu bul appel bul def pourvoi de cassation pourvoi de cassation te yow nga xam lu tax mais ñu obtenir ay garantie garantie yooyu la ñuy appliquer fi mu nekk nii kaay ma wax la leneen gis nga régime bi fi ñëw tey ñoom dañu ni woon ci eh, campagne électorale bi bu ñu ñëwee dañuy dindil waa exemple ubbi waat dossier bi mosoo ko dégg ñoo ko diggee woon mais loolu moo gën a yomb tas na moo gën a yomb tas ay groupe parlementaire u parce que ñoom majorité la am dañuy voté rek mu deñ luñ ciy xaar lan lañ ci xaar lañ ko lever loi Ezzan kan la profité

affaire médecin bi. dafa am lu ñu sële ci lu ñu sële ci kaw léegi maa ngi leen di ñaan ñoom ñoom majorité parlementaire bi mais ñu ñu lever ñu ñu abroger loi bi maa ngi ñaan magistrature sénégalaise magistrat yi ñoom ñi nga xam ne seen mbokk la ñu boom seen supérieur conseil constitutionnel nañ ci jàpp pour ñu mën a ubbi dossier bi. balaa man yàlla di ma fi jële ndax mu leer ndax maa ngi nii léegi léegi léegi léegi fu ñu ma woo mu ñaari institution yooyu judiciaire ak parlementaire lillaahi wa rasuuli ji nañu boole seen doole ñu yëkkati mbir mi mu leer mais pourquoi Clédor Sène moom bëgg mu leeraat te au contraire ñu bëree bëri sax dañoo foog ne dañoo bëgg affaire bi fay non non Clédor Sène amu ci intérêt Clédor Sène amul ambition politique non li ngay wax ne dañ ko sële affaire bi ci kaw a kaw a kaw xanaa dafa am ñoo xam ne dañ ci takk ci ay punkal yoo xamante ni yow da nga leen xam euh, en tout cas daal képp koo xam ne am na xibaar wala élément boo xam ne mën na tax ñu leeral mbir mi maa ngi koy xaar ci plateau wala mu dem ci procureur élément nouveau rek les soxla pour mon a dossier bi ci am. parce que un, ay temps ko don ci wax mais xamna ni mu demee yépp ablay di wax lu mel non, mais bobu man décidé wu mon bok ci ci ci ci décidé sama sama mais comme ñom ñu ngi wat di jaar pour politique. te chaque fois sama kaw la dal sama der lañuy ngab, sama der lañuy yak. ci lo xamni yeguma tinuma mhm. légui nak, affaire bobu da fay dak day dak parce que bu fekkee ni euh liñu bëgg moy lu lèr nañu yëkëti mbir mi man ma ngi ni fuñ ma wo mu luñ ma laaj ma laaj ku ci xam lenn lu lèr na ñew indi fi ci table bi ma jàkkaarloog mom wala mu dem ci procureur jox ko ko ok gis nañ na daal euh, ku miin ak ñeme woon nguuru Abdou Abdou Diouf. Mhm. ak tamit euh, nguuru Abdoulaye Wade bi tamit euh, jaar fii. Mhm. est-ce que président Macky Sall xam nga ko. waaw xam naa ko nii rek. Mhm. comme ni ko Sénégalais xam waaw comme ni ko Sénégalais yi xamee rek. parce que xaritam. sama xarit la muy bay la woon. jeex na noonu daal laa xamee. Macky Sall waaw mais amuñu ay relation amoo leen relation. waaw jëflante nañu benn yoon rek. waaw am problème bu ma amoon mu jàppale ma ci rek benn yoon la bi mu nekkee primature. mais euh, xamante wuñu comme ni ma xamante ak ñeneen ñi. moo ne mais Idriss Seck moom miin nga ko mos ngeen doon toog réunion. non non ko miinu ko moom ku effacé woon la. c'est-à-dire ñun 88. moo tax opposition bi yëpp xam ñi parce que ñëpp dañ doon bëgg xam booy yi ñan la booy yi ñan la. kan moo ne seen ginnaaw quoi. non kan newul suñu gannaaw. non c'est la nit nous daan questions. non non non non non. sax nous euh, nu mu PDS nous dañ leen non ñun ñoon ci opposition ah, non parti politique mais. opposition exemple exemple peuple moy doole ñun ci côté peuple bi la ñu muy melni 2011 23 juin mais ña néwon buntu assemblée ñoñu ñoñu politique ñu duñu ay opposants politiques ñoon parce que ñoñu dañu fekk politiciens qui ñuy réunion sax ñu génnee leen ni leen wax wax wax wax wax waaw bu politiciens yi sax yaakaar ni ñoom tamit ay kilifa dañoo war a ŋàbb xeer comme boy def yëfu def yëfu boy mais peuple bi ñoo leen jiitaloon donc ñun côté boobu la ñu féete woon 88 loolu teg firiwul ni da ngay politique parce que man bañ ma wooyee proposé ma carte ma samay morom dañoo bañ mais ñi nangu woon politique jamono boobu mooy ñoom Pape Samba Mboup ñoom Cheikh Touré ñoom Bayla Wan ñoom Mamadou Diagne Fada ay général 88 taar yi mais bari na ci ño xamni opposition bi. Mm-hmm. donc loolu motax ma presque parce que ño daan Bien daan dans D'accord. mais aduna di dox di dox di dox ba nga ba Macky Sall ba nga gis Wade ñu ko ci mm-hmm. affaire bi yow après lan la la def affaire non euh, comme ni Sénégal yeb parce que euh, man loolu ci sax wax. parce que ñoom fi mu nekk nii ñu ngi neen ñu ngi naan cré yi baaxul te tëj nañ ci joomu jàmbur ba pare te teguñu ci loxo nit ñi lu ñu mën a jàpp gis nga am na lu gën a garaaw lu am ci dëkk bi loo xam ne man dinaa ci incha allah communiquer dégluwoo ma de maa ngi ci communiquer waa am na lu gën a garaaw ay ay cré yi ay détournement mooy suñu suñu koom gi ñu am suñu richesse bi ñu am suñu ressource minière yi ñu am nañu koy def bés bu yàlla sàkk ay milliards a ngi génn Sénégal yii di génn yii di dugg ci ay ay gafa euh, ay nit te loolu waxuñu ci man dama ci liggéey ba teg te liggéey boobu incha allah danaa ko fësal parce que télé doyuma ci ben média doyuma ci il faut que ma am sama propre moyen de diffusion ak ni xarala yi demee léegi euh, kenn amatul monopole diffusion donc na am site bo xamni na ci partager ak sénégalais yi li ma xam ci fànn bobu lolou mo gëna graw affaireu affaire donc Karim sénégalais yu bari dañ japp dañ ko togn té man ci ñoñu la bok parce que ca njëlbeen bi lañu ñu ak fuñu mujjé du benn ba noppi dañu jalgati ay ak ay yelleefam parce que nguur du jaay doole parce que dafa am loo xam ne euh, jaay doole la te benn nguur saxul donc nit ki lu muy def rek da ciy sóoraale yàlla sóoraale ci ëllëg donc mbiram ñëpp xam nañ ni euh, dara jaaru ci yoon mais moom it na muñ Euh, kaso jommul kenn ne nga man maa ci génn ba tey nekk fii di wax moom tam ëllëg da ciy génn ba nekk ci leneen. Mhm. d'accord kon Clédor euh, ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf Ahmed dara bëgg nañ tamit ci ñëw bi nga xam ni ñëw nga ko fii ci Sen TV mu nekk nag bu njëkk ñu gis la ci tele waaw parce que dëgg la maa ngi doog a génn ci tele euh, Sen TV laa njëkk def parce que olof laa waroon njëkk communiqué te gis naa si liggéey rafetlu ko. moo tax ma ni naa njëkk ci yow balaa may ubbeeku fi mu nekk nii daal euh, silence moom jeex na incha allah. silence jeex na waaw jeex na. accord mu nekkoon seen émission seen jotaay spécial la sax tey ñu doog ko doon seex nag ak kii di Clédor seen ñu bëree bari nag euh, dégg nañ turam ñu bëree bari liir nañ ko ci journaux yi ñu bare bëri tamit euh, yàkkamte woon nañ ko gis tey nag mu may ñu kon exclusivité bi ñu ko ci gërëm kon di ko ci sant di leen jox kon di daje ci beneen numéro incha